sunnaay dox ngay jàng dox sa moroom ba tey ñu ngi ci xalil bi ci añ màkk ne wa taqbilu xajar yi foon xajarul aswat foon kon wa sunna sunna leef na taqbilu xajar xajari foon doj wa loolu la bëgg ci sax yi nga dox sa moroom dégg nga mune ne wa ruqiihu ak hiig aleymaa ci sen ko ñom ñaar muy safa ak marwa ba ngay defar. taxawal safa taxaw bu pare yek ci koom do defar bu dul lolu da nga yek ci marwa ñet yek ñent yek ci safa ñet te bu nek da nga wara yek ñent yoon ko da ngay taxaw ci safa yek bu nopi do a defar dem marwa taxaw fa yek muy ben nga ñoka ñu safa yek xam safa am ñaar demal wa yek bu mu jom ñaar yoon bu nek am ñen taxaway motam tax ma ruqi muy kamratin ni ki jige nit dana yek ca kaw safa ak marwa in qala ndem fiix amu amul buuxante amul raj raj loo dégg in qala ndem fiix na ne ba tay sunna la wa israhon ak gaaw baynal a'dharaini ni ñaar yi way nettu nettoyé nettoyé ta koñu kaaba ga suuf suufu manaar baabu aliin ci suufu manaar baabu aliin israhon bayna al aadrayni gaaw gi nag nu mu toll fawqa ramalin fawqa ramali fawqa ramali moo gën kowe yukkat bu nekk farara daw déedéet mu gën a kawe li nga xam ne mooy daw daw yu ndànk te yemu ci daw ci daw yu xiir ba ak in ñaan nag ci ba dog safa marwa bu yégee safa ñaanal bu yégee marwa ñaanal mu ne fi sunniyati wa fi sunniyati rakaatay tawaaf yi mu ngi ci ko jóg sunna ak ñaar rakka yi ngay def boo wëree kaaba gu noppi wujjoo bihima ak seen war ñoom ñaar taraddudun dengi dengi eh, ndax boo wëree kaaba gi ba noppi ñaar ak yi ngay julli sunna la wala dafa war am nañ ci dengi dengi lil mutaaqirina ndax ña ko jiit ña jiitu woon ñoo ko yaxalul waaye waaye du am waaye waaye nu di ba soppeef na leen nag loolu ñëpp d'accord nañ soppeef na leen dégg nga wa nu di ba soppeef na leen mu ni kal ihraam yi ni soppee ñaari yi ngay def boo wuri armale ba noppi dégg nga mu ne bil kaafiroon gën a fatiha rakk bu njëkk bi kaafiroona wala ixlaas bu ñàkk bu bi gën a fatiha ixlaas te it wabil maqaam nga jullee ko ca maqaam Ibrahim nga jullee ko foofale ca xalfa maqaam Ibrahima fa leen ko jullee ndax yonent bi bi noonu la defoon moo tax it nag loolu lañ sopp wa duwaa sopp nañ ñaan ba tey mbir mul tasam sopp nañ fa ñaan mul tasam sopp nañ fa ñaan wastilaamul xajari ak fóon doj wa xajur aswat fóon ko sopp nañ ko xajur aswat juróom-ñaari wër yëpp wër bu nekk nga fóon ko wala yamaan yi ak fóon rukkun nu yaman ba wala laal ko boobu laal ko ci mujj bu ne rukkun yaman ba dégg nga mooy badal awali ca gannaawu wër bu njëkk ba waxtu saarun ak soppane gàttañ du xalaa tarbiyatu rasuli ci labee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàttandu ca bu ci ko dara dara te mooy labayka allahumma labayka labayka laa sharika laka labayka inna alhamda wa nihmata laka wal mulka laa sharika laka labayka laa sharika laka labayka nag li muy tekk mooy sax naa dërëgo yu njëkk nga may wax tafar moo tax boo ñun suñu làng ñun wolof man dama koy wuyoo sax dama xoolee ba ci biir sax bu dee ci sa waajur la dafa mel du teggin sax ak bu yàlla nag moom teggin la xam nga lu tax gis nga sa wajur bu la wooyee nga ne ko wuyu naa la du teggi waaye bu fekkee yàlla moo la nga ne wuyu naa nga may woo sax teggiin la moo tax la bayka ñu ngi koy def nag tàmm nañ ko waaye bu ñu koy firee dëgg bu dee ci sa kilifaam du teggiin sax mooy ndax mooy wuyu naa la wuyu naa la wuyu naa la kenn du ko wuyoo kilifa bu borom bi nag mooy njëkk yàkkamti naa sax sa ndigal ma def ko mooy taxaw naa ci wuyu la rek dégg nga wa duxulu makkata ak it sopp nañ dugg makkatal mukarama naaran ci bëccëg ah naaran wal bayti ak duggee kaaba ga sopp nañ dugg kaaba ga dégg nga wax bi de ci bëccëg wa min kuddaa akir boy dugg nga duggé ci mbéd momalé du buntu ba kay di ma niin ñeel ko xam ne mu ngi jógee Madina wara wal masjid gidi so ko ne ja min baa bi ban ni saybata bu dugg ci jakka ja na nga duggé fofalé ba ban saybata léegi ñu ko babu salam nak jamono yi mu ngi babu salam ko ko rojo ak gennam genn makka min kudan booy dugg na nga duggee kuddaa ah booy genn nga genné kudan waru sopuni ak julim li tawafi ngir ñaara kay tawafi ya. sopuni ko badal maghrib gannaaw bo xamé ne julli bu qabla tanaful yi njëkk muy naafila dafa wër kaa bi gën a takkusaan te diggante boobu naafila fi daganul kon bu jullee timis rek bala muy naafila ne def ñaar rakk yooyu ba pare doog def ñaar rakk yi muy def ci gannaaw timis dégg wax moo tax waru ko waxoon li tawaaf ba dal maxrib bi qabla tanaful yi sopp nañ xala tanaful yi njëkk naafilaam nga njëkk naafilaam nga wul masjid ak it ca jàkk ja wul masjid ca jàkk ja waramalu muhrimin ak ñakkuk aji xarmal min ka taniee mi jóge fu mel ni taniyam aw bil ifaadati wala ci taaw ifaada ba li mu raay ñeel ko xatol ko xatol ba dégg bi ñaarakke yi nga def ñaarakke tawaaf yi na nga ko def ca ca jàkk ja ak ci ñëkk bi la wax ñekk góor gu xaramal moo xam aj la wala orma am na fu ñu taniyam wala jaaraana ak koo xam ne dafa def waru waru ifaada ba li ma la wax ci ku xat nag nga xam ne deful tawaf xudóom def ñu def ñaar rakke wa wadaayen wala tata tatawayen nag waxuma nag ajug coobarewu sopp ñu li xam mooy yukkat bi ci ajug coobarewu wa wadaayen wala ajug tàggatoo sopp ñu ko yukkat bi la yukkat bi bu kasaratu ma sur bi may sam-sama sopp nañ bëri nan ndoxum sam-sam wa naqlu ak toxal ko yóbbu fa nga jëm yóbbaale ci sarita sopp nañ ko dégg wali sa'i yi na nak sopp nañ ñeel ndox soo mar wa suratu salati salaati sartaay julli yi julli yi suratu salaat julli jarul leeral def xam nañ ko wa xutbatun ak xutba sopp nañu xutba ci imam bi ba da suuri saabien gannaaw subaa bi su juróom-ñaareel ba màkk te ca màkk ca màkk ci xuru màkk ba waaye desuñ benn xutba nag lu mu jëriñ mu ne yox biru mu xamle fiyaa ci moom li manasik ci ni ñu jaamoo yàlla ci añ màkk gi da ci xamle nga xam ne dañ koy def ci yomu tarwiya ba ak guddi juróom-ñaareel ga ak yu mel noonu wa xurujuhu sopp ne ak génnam kañ màkk ci bisu juróom-ñetteel ba boo màkk li mu nan jëm mi nan xadara maa yudrik kémm loo xam ne dana dabi biyaa ci mi nan suura tisubaar da mu tisubaar o bayaatoo sopp ne ak fanaanam biyaa ca mi nan ah ca mi nan guddi juróom ñeental ga bu dugg juróom-ñeental ga wa sayru ak doxam li arafata jëm arafa ba da tunaay gannaaw boobu jant ba fenkee ci juróom-ñeental ba sopp nañ ko unzul wa bi namirata place la wa xutba taan ñaari xutba ba da sawaale gannaaw jëngoñu ko jant ba kon li muy jàng añ màkk boo nee màkk jëfewul bu nekk màkk ak gi jëfewul bisu juróom-ñaareel bi ci añ gi ci nga armal mo mo xal ci nga armal bi nga armalee ci bisu juróom-ñaareel bi juróom kuasa aka baik, la bayka di la baykawu ba ñëw wër kaaba gi taafu xuddoom juróom-ñaareel bi de ba wër defee taafu xuddoom ba noppi dox dox safaak marwa ci bi ju mettal bi nga dem fanaan mi nan ju mettal bi yendu mi nan sax di fanaan fa yendu mi nan fa ndax dafa jël tusubaar tàkkusaan timis gee fanaan fa ba sa juróom-ñeental bi nga dem arafa yendu fa ba ngoon jot bu jënt bi so nga def fa taxawaay arafa guddi lay doon nu gàtt gàtt baax na taxawaay arafa juróom-ñeenteel bi nga jógee arafa ñëw Muzdalifa julli fa tamit sa gee ci juróom-ñeenteel bi ci juróom-ñeenteel bi fara Muzdalifa booba seet wecc waxtu ñu pare wasifa yi nga laxasee Muzdalifa fekk for nga for nga jam jamra yi ngay sànni jamra xaw bi nga ñëw Minan sànni jamra xaba ci bisu tabaski bi nag mooy bisu laaj bi ñu ko tënkee rana xala rana xala ram bi mooy ram bi nga sànni jamra xaba la sa gileem watu dafa demaan màkk def tawaafu ifaada boo xëyee nag su suba sa nga ñëwaat mi nag bu neexee am fa ñaari fan bu neexee ñetti fan añ màkk nga jaan añ màkk noonu la jaan yal na yàlla yóbbu ñu fa bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla yóbbu ñu fa bi jaay rasulillahi ñun ñëpp bi jaay nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf ba suba incha allah dax laa la